asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki Sénégal mbokki diaspora bi mbokki jullit ñi seen télévision Tawhid TV moo leen tàmmul ab jotaay bu tudd Al jotaay boobu nag li ko tax a jóg mooy téere borom bi subhaanahu wa taala ci jàng gi waaye ak jàngat gi settantal ko saa buñ ci ñëwee daañu taamu aw saar ci alquranul karim wala ab barab ci alquran wala jenn laay joo xam ni daañu ko teg ci taabal ji bokk ak sunuy mbokki julit jàngat ko settantal ko génn ci ay njëriñ yoo xamante ni dañ koy bokk ak julit ñi jotaay boobu nag seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Gueye moo leen koy indil léeg it mu ànd kook ay sëriñ daara ay borom xam-xam ci réew mi yoo xamante ni xam nañ leen ci wàllu googu fii lay amee ci Tawhid TV bientôt bu leen ko kenn di nettali incha allahu nu ànd dund alquran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu